wax dëgg yàlla bokk ak yéen mm-hmm. euh, naqar la mm-hmm. naqar mm-hmm. boo xam ni lii plus jamais ça mu xew itam ci bés boo xam ne euh, ci weeru jigéen ñi weeru mars nga xam ni jigéenu Sénégal ñu ngi nekk 52 pour cent de la population ñu war leen di sargal ci weer bi na nag ku mel ni Maymuna parce que jigéen ñëpp tey ñi ngi ñi ngi ñi ngi exceller ci seen domaine ñii ñu ngi ca napp ga ñii ñu ngi ca mbay ma ñii ñu ngi ca tool ya ñii ñu ngi ca marché ya mhm. may mun a nag mhm. euh, man il faut ma jóg plateforme bi il faut mu jóg parce que toujours damay wax ni jigéen la boo xam ne ci domaine am c'est la seule femme patronne de presse mhm. loolu c'est assez révélateur de l'engagement de cette brave dame et du professionnalisme de cette brave dame man damay wax toujours ni yes le slogan yes we ci Maymuna laa koy appliqué. Mm-hmm. dafa dafa ramper xeex euh, euh, engagé wu ci domaine am ba yàlla jox ko li mu ko jox. Euh, jërëjëf si kon tey. Mm-hmm. man may suis Maymuna. Mm-hmm. defe naa jigéen may ñëpp. Maymuna lañ jigéenu Sénégal yëpp. ñu ànd ak nag journaliste yëpp. yéen ñi nga xam ne yéenay liggéey ak Maymuna ñu ànd ak yéen ci xeex bi ànd ak yéen bokk tiis bi. bokk naqar bi.